salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi am mbégte ànd ak yéen ci seen émission keppaaru koor niñ ko waxee woon fas yéene ñoo ànd ak yéen durant mois de ramadan di leen gunge ci keppaaru koor gi ngir képp koo xamante ne bëgg na xam ngëneel yi nekk ci koor njëriñ yi nekk ci koor atte yi nga xamante ne ab jullit waru ko réeree ci koor ndax ñun ñëpp ñu mën a woor woor goo xamante ne bu mucc ayib la ñu ngi sant borom bi subhaanahu wa taala mi ñu may ñu fekkee li nga xamante ne mooy weeru koor fekkee weeru koor mbokk jullit yi occasion la boo xamante ne bu rëy a rëy rëy ngir ne opportunité la pour la pour mu may la nga dem li nga xamante ne moom mooy aljana yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ab bis dafa am benn saxaabi boo xamante ne dafa faatu ci kaw lalu am keneen koo xamante ne mu ngi faatu ci xare ku faatu ci xare moom la ñuy tuddee shahid mooy martir la bi maanaam martir la mooy ne kooku aljanaam kenn du ko lam-laami wante ki nga xamante ne moo faatu ci kaw lalam mbokk gént leen ñoom ñaar ki faatu ci kaw lalam ëpp ko ay daraja ci biir aljana mu ñëw jaaxle di ko laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallama est ce que xam ngeen lan la ko yonent bi sallallahu alayhi wa tontu lu dindi yéemu googu mu doon yéemu daf ko wax rek ne ki nga xamante ne moo faatu ci kaw lalam ñaata weeru koor la fekkee ci ginnaaw ka nga xamante ne moo faatu ci xare kon ndekete fekke weeru koor occasion la xéewal la bu la yàlla subhaanahu wa taala may kon na ko saisir balaa mu lay rëcc yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax bu weeru koor ñëwaan danaan woo saxaaba yi di leen félicité di leen bégalee li nga xamante ne moom mooy yegg si weeru koor daan leen wax أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران وتصفد مردة الشياطين أو كما قال صلى الله عليه وسلم يرين تبي صلى الله عليه وسلم دان وح صحابينا لين بك لين ويرو كور ديكل نلين منك ويرو حمنتني ويرو باركلا weer la woo xamante ne dañ ciy ubbi buntu aljana yi tëj ci li nga xamante ne mooy buntu safara yi jéng li nga xamante ne moom mooy seytaane yi yàlla subhaanahu wa taala doxalin wu ni mel pour mu permettre la yow mi nga xamante ne yaa bëgg borom bi subhaanahu wa taala bay taxawe santaane borom bi subhaanahu wa xiif mar dékku li nga xamante ne mooy coona yàlla may espace boo xamante ne ak atmosphère boo xamante ne boo ci tegoo rek dinga am li nga xamante ne moom mooy aljana kon weeru koor weer la woo xamante ne ay ngëneel yu bëree bëree bëree moo nekk ci biir bi ci njëkk moo dina ci ngëneelu weeru koor bankal sa baaraam ma wax la weer la woo xamante ne weer wu barke la yonent bi sallallahu alayhi wa yeneen weer yëpp da daan ñaan yàlla barkel leen weer ya moo tax mu bokkoon ci ay ñaanam allahumma barik lana rajaba wa chaabana wa يالا ramadan yow yàlla yàlla nag ñu barkeelal weeru rajab nga may ñuy fekke li nga xamantene moy wéru koor lu tax ci wéru koor waxul nga barkel ñu wéru koor parce que wéru koor wér la wo xamantene yàlla da cee def barke ba pare soxlawul nit di ñaan barke wéru koor ñaarel ba ci ngëneelu wéru koor wéru koor wér la wo xamantene weeruk aljana la comme ni mu rotee ci xadisu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama muy wax naan weer la woo xamante ne dañ ciy ubbi buntu aljana yi weer la woo xamante ne ci la nit ñi di njëkkalante pour am li nga xamante ne moom mooy aljana war nga laaj sa bopp durant mois de ramadan gawar gi ma war a yéeg fas wi nga xamante ne moom laa war a yéeg pour mu yóbbu ma li nga xamante ne mooy aljana est-ce que préparer naa ko est-ce que man ci wàllu psychologiquement préparer naa li nga xamante ne mooy sama bopp pour woor li nga xamante ne mooy weeru koor bul déglu ñi nga xamante ne ñooy jàpp ne koor coono la bul déglu ñi nga xamante ne ñooy jàpp ne koor jafe-jafe la non koor weesu na li nga xamante ne moom mooy coona parce que nit mu ngi xiif di mar ngir yeneeni cause ci àdduna chaque jour ñu gis ko kon ndekete koor occasion la bo xamantene mom lañu yàlla subhanahu wa taala defal pour ñu mën ci am li nga xamantene moy aljana motax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal ñu ci hadith ke ne borom bi subhanahu wa taala neena wéru koor sa bu ñëwé yàlla subhanahu wa taala da fay wax aljana ne ko gëna la taru gëna la rafet gëna la ñaaññ des na tuuti sama jaam yi ñëw fekk si la ma leen li nga xamante ne moom mooy aljana weeru koor bokk na ci li nga xamante ne moom mooy ay ngëneelam que ne weer la woo xamante ne yàlla subhanahu wa taala da ciy jéggale bàkkaar weer la woo xamante ne yàlla subhanahu wa taala da ciy yërëm jaam yi weer la woo xamante ne yàlla subhanahu wa taala da ciy goreel nit ñi ci safara moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ci benn xadis huwa shahrun أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار يونتبي صلى الله عليه وسلم ويرو كور ويرو لو خمنتني فكي فان ينجكي فكي فانوك يرماندلا فكي فان يتي توب فكي فانوك نجيغل فكي فان يتي مجو فكي فان لا يو خمنتني يالله سبحانه وتعالى داي غوريل اي جامم تي بير ليغا خمنتني موم موي سفر quelle occasion est-ce que pare nga pour saisir li nga xamante ne mooy occasion yooyu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallama jàngal ñu ne kenn gënul perte kenn gënul perte ki nga xamante ne moo fekke weeru koor ba weeru koor jeex te duggul li nga xamante ne moom mooy aljana est-ce que duñ ci bokk non non ñun ñi nga xamante ne ñooy suivre keppaaru koor ñun duñ ci bokk parce que keppaar gi dafay gunge ñu di ñu gunge ak ngelaw li nga xamante ne moo ñuy ëpp ci xam gi ñuy xam moo tax ñu profito ci occasion koor gi pour am li nga xamante ne mooy aljana bokk na ci ngëneelu koor weeru koor gu màgg gi mooy weeru li nga xamante ne mooy alquran ويرلا وحمنتني سيلا يلا سبحانه وتعالى واتشي القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ويرو كور موي وير ويغا خامتيني سي لاني واتشي ليغا خامتيني موي ار القران بروفيت توا سي ليغا خامتيني موم موي بيريود بي ني semi confinement lañ toll wala nit ñi di wax ne restez chez fexeel ba góor góorlu jotaay yi ngay toog ci biir li nga xamante ne mooy sa kër mu nekk jotaay yoo xamante ne da ngay ubbi alxuraan defaraat sa digganteeg li nga xamante ne mooy alxuraan defaraat sa digganteeg li nga xamante ne mooy téere borom bi subhaanahu wa dee ko déglu dee ko méditer dee ko toog ci jotaay yi nga xamante ne fa lañ koy firee lii mooy li nga xamante ne moom mooy ngëneelu weeru koor fa ñuy jeexale ci ngëneeluk li nga xamante ne mooy koor mooy ne koor weer la woo xamante ne weeruk muñ la te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na muñ yàlla du ko fayee lu dul li nga xamante ne moom mooy aljana moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne koor tuyaaba yi nga xamante ne moo ci nekk kenn kenn xamu ko ku dul yàlla subhanahu wa ta'ala moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallama wax ne yàlla boru buur bi subhaanahu wa taala dafay wax ne doomu aadama li muy liggéey yëpp xam na ñaata laa ko ciy fay ba mu des koor koor yàlla nee na moo ko moom te moo koy fayal boppam te koor weeruk muñ la te yàlla li mu wax moo di ne innama yuwaffa saabiruuna ajrahum bi gayri xisaab kon nañu góor góorlu ci fan yu néew la ni ko yàlla subhaanahu wa taala waxee ne ayyaaman maadudaat ay fan la yoo xamante ne yu limu la mais ki nga xamante ne guddul ci moom mooy ki profito ba li nga xamante ne moom mooy koor gi bi muy jeex mu saisir occasion yu ci nekk ñu ngi doon am mbégte ànd ak yéen ci li nga xamante ne moom mooy keppaaru koor di leen jox dig daje ba beneen yoon salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu